seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh njaay Gana sëriñ Tuubaa xaadale wallaahu maxtaaran lahu jumaa yaay njaareem yoor yooru bisub altine la ko sëriñ bi tàmbali te mooy bi muy teg xeer wi wér na nee nañ liggéey bi am na juróom benni at ak juróom-benni weer ak juróom-benni fan wallaahu a sëriñ tuuba xaarala walaahu maxtaara la foo nee na ku ñuy tarbiya du xeex ku tarxiya du xuloo ku ñuy tasfiya du mer tarbiya nag mooy yar tarxiya mooy yéege tasfiya mooy sellal sëriñ Tuuba xaadala walaahu maxtaaran la xoo nee na yaari gor duñu xeex as gor akub saay-saay duñu xeex yaari saay-saay rek kay xeex siiw na sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene